fayeekoo Trust Bank mu doon ñoo xam ne ñoom it fi mu nekk nii dugal nañ seen loxo ci programme yi ñu ni neen la eh, ñu ngi leen di gërëm ñoom it tamit ci li nga xam ne ñoom it bokk nañ ci ñi tànn programme bi doyloo ko dépassé seen xaalis muy waa Trust banque ñu duñ fàtte nag waa Qcell ñu gërëmi tamit aji aata mi nga xam ne moom it jamono bu ci nekk rek mu ñoo solal ci programme bi ñu ni neen la loolu yëpp mbir la boo xam ne kontaan nañ ci lool eh, ma bàyyi ngeen dugg ci waxtaan wi lii nga xam ne moom lañ jot a junjan yi e, ñu seet nañ ko waxtaanee rek ci biiri waxtu wi nii. E, jërëjëf Adja Aida ñu ngi njëkk nuyu suñu doomi day yaaj Babacar e, di ko maatsawu ci coono ak yitte gi nga xam ne am na ko ci programme bi lii taxawaayam ci programme bi toujours mu ngi yëngatu rek ci loo xam ne dina dundal programme bi ñu ngi ko gërëm ci loolu. Eh, di nuyu itam suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci programme bi saa yoo xamee ni programme bi am na dañoo toog ak ñun tey tey nag ñun am nañ ak wéetaay ndax dañu dee gunge bu baax mhm. ndax li olof yi di wax ne mel na xel doyul lu ci bari ci programme bi dañu ko jubbanti te itam dañoo taaral programme bi dañ koo jëmal ah, njëriñ yu bari itam ci wàlli kàddu daf dee bàyyeekoo ci mbooloo moomu yàlla def nag tey xat-xat moo tax ba munuñ fee teew ñoom ñoomi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci taxawaay boobu e, te it nag di leen masawu coono ndax ñoom ñu ci bari itam dañoo jànkuwante ak jafe-jafe balaa ñu agsi fii ci studio bi te itam yitte woon nañu ko bu baax a baax ñu am e, taxawaay lañ ci programme bi foog ñoom itam ñu xaasal leen nuyoo e, di leen gërëm bu baax di nuyu itam nag euh, ñi nga xam ne ñooy seetaan programme bi ndax soo gisee programme bi tey ñoom lañ ko jagleel ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ñu sas ndax booy wax li ñu wax ne kii wax kii déglu euh, moo tax muy wax kon euh, kii déglu moo moom kii wax ndax wax bu amul ku ko déglu amul njëriñ ba tax na ñi nga xam ne ñu ngi déglu programme bi surtout nag ñi nga xam ne ñu ngi ko déglu di ko rafetlu Eh, léeg-léeg sax ñu wax la ci loo xam ne sax yow mu nekk ci programme bi sa yaram dina daw nga dégg ci loo xam ne fooguloo woon ne sax mu ngi ci biir programme bi wala nit wax la ci njëriñ goo xam ne am na ko ci te xëj na sax yow yaakaaruloo ko ci woon xëj na ñun dañoo làmbatu rek waaye yàlla def na ñu nit ñi nga xam ne ñooy de programme bi ñu ngi cee jëriñu ndax lu bari am na ci loo xam ne waxtaane nañu ko eh, ñu ngi ko jéem a jëfe Eh, ci suñu biir ak suñu dund ak ñi nga xam ne ñoom lañu ñu dikkal kon ñi nga xam ne ñu ngi jëriñu programme bi ñu ngi leen di gërëm rawatina nag ñi nga xam ne tam léeg-léeg eh, ñu gis mbir moo xam ne xëj na ñoom mënuñoo teew ci programme bi pour ñu waxtaanee ko ñu ko ñu ñu ko yóbbante eh, loolu am na solo ci programme bi moo tax ba tey ñu xelaat ne comme que ñu ne neen la ñii teew ak ñi mënut a teew ñëpp ñoo bokk programme bi suñ sañoon képp koo xam ne kii yaa ngi dundee programme bi rek nga teew ci programme bi li ne ci yow ci wàll njëriñ nga waxtaanee ko ñun ñëpp ñu mun cee jëriñu eh, waaye nag du tere li nga xam ne moom la ñuy yóbbante muy mbir yoo xam ne lu leen itteel la itteel askan wi eh, ñun dinañ ci jéem tuuti tey dañu cee sompa rek ndax liñ ci liñ fi lim bari na mm-hmm. xëj na mënuñoo wax lépp xëj na amuñ xam-xam bi sax pour wax lépp. amuñ man-man bi pour wax lépp dinañ ci comp tuuti rek su ko defee bu yàlla defee jamono am dinañu gën a yaatal géew bi eh, yaatal waxtaan wi su ko defee indi ay borom xam-xam yoo xam ne itam dinañ ci mën a saraalu baree baree bari eh, mu doon njëriñ ñu nuyu itam ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew di topp programme bi eh, di ko rafetlu ndax saa yoo xam ne nii def nañ programme boo xam ne dañu ubbi line yi lu ëpp ci ñi kool bitim réew la dee bàyyeekoo. mais ñi ci biir réew mi sax dañoo faf ne xaaral ñu bàyyee leen ko ndax ñoom ñu ngi sori su ko defee ñu mun leen a dégga ñoom itam ñu mun a bokk ci li nga xam ne mu ngi dox ci biir réew mi kon diggoon nañ leen nag ndax li ñoo wax ne dige bor la ne dinañ am programme boo xam ne dinañ leen ko jagleel loolu ba tey mu ngi ci suñu xel nga xam ne ñu ñooy ñoom rek ñooy toog ñu waxtaanee <clears throat> li nga xam ne ci moom ñoom moom lañ nekk foofu ak li nga xam ne moom la ñu gis ci wàllu yokkute réew mi ak lan moo di doon seen ndolli ci li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam ndax li wolof yi wax ne piccaa ngi ci kaw waaye xel ci suuf ñu ci bari bitim réew dañu uti te amuñ fenn fu dul Gambia ñoom nag ñoo war a jàppale ñun ñi nekk fii ndax réew mi eh, mun a jëm kanam ñu gërëm itam ñi nga xam ne ñu ngi def seen loxo ci programme bi ndax loolu am na solo eh, ndax eh, ki nga xam ne mu ngi dox te xëj na fi mu dem ñemewu fa Euh, boo ko gungee yaa ñemeloo yaa dimbali kon ñi nga xam ne ñooy euh, ajaata euh, ci wàllu col geek banque ak Qcell ñoom li ñoo wane mooy ne sopp nañ si réew ndax ñu ne neen la li tax mu jóg rek mooy lu defal réew mi lu defal askan wi lu yóbbu réew mi kanam waxtaan ci jikko yi su ko defee ñun ñëpp ñu mun a fexe def loo xam ne lii réew mi dina ci mun a demee kanam li nga xam ne nag mooy euh, waxtaan wi ajaayda yu bari nga lim <clears throat> xaj naa ñu seet li nga xam ne mooy bi jéegtu rek ñu comp ci su ko defee ñu jox aaj Babacar wala ñu bàyyi ko mu ubbi su ko defee ñu seet li nga xam ne mun nañ cee saraat tuuti waaw Babacar alhamdulilah soxna Ayda jërëjëf euh, aj sëriñ jërëjëf mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh nu ngi sant yàlla bu baax nu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi am mbégte beneen yoon toog ak ci programme bi mu di ñuy neen la jaajëfal lu baax nag soxna ay jara ak ay sëriñ fay ci ñoom itam itte bi ñu am ci lii wax dëgg yàlla nee nañu lu kenn man ñaare ko ko dàq te booloo mooy doole te seen itte yëpp mooy lii mbokk yi jéem rek pour seet naka la ñu dimbale woon tey ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen taxawaay rafet na lool macha allah ñu ngi ñaan yàlla daal mu yokk seen fan te dëgëral leen lépp lu leen jaaxal yal na yàlla jàkkaarloog loolu ba mu daal di nekk lu feex ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamne ñu ngi ñuy jappalé ci walu xarala gi waaye ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñi nga xamne waxtu bi ak waxtu bu dul bi sax yéen ngi taxaw rek pour gis ne programme bi ñu ni neen la dal lañu ñu naan delloo paaka ca maram def nañu ko manam waxtane nañu lo xamne askan wi itteewoo na ko ba nga xamne ñun ñep ku ci nekk sa dundu dina tané ne nañu daal am ba jeex am ba am la nga soxla yépp do ko ci aduna waye doylu mom nit mën na am wala boog doy lu nit mën na ko def ba am na foo bu fa tolloo nuyu fi taxawee rek mu gërëm yàlla kon nag mu ngi noonu euh, gërëm li ñu doon wax rek moo di ne saa su nekk li nga xam ne mën nañ ko gëm moo di ne ñun ñëpp ñooy defar àdduna waaye ñun ñëpp bala ñu koy defar itam faaw ñun ñëpp ñu diisoo ci li nga xam ne moom la ñu séddoo nga xam nga programme bi mbokk yi dañu ko moom mooy mbokk yi nga xam ne ñu ngi fii mooy mbokk yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ñu ngi leen ñëpp ñu ngi nemmee ko bu baax ñu tawaat di leen seet di ñaan yàlla mu defal leen tawféex ñëpp ñu ngi leen di nuy wax dëgg yàlla waaye li ma bëggoon a wax moo di léegoo léeg da ngay dox nit gërëm programme bi ba noppi ne la nag waaye lii war ngeen cee waxtaane lii war ngeen cee waxtaane te nag xam nga àdduna si jamono bii ñu toll àdduna séddoo xibaar la mm-hmm. maanaam ñun yéen yéen moom programme bi mbokk yi ba tax na ñu jàpp ne comme ñu bëree bëree bëri bëri daañu wax nañu wax ci bii nañu wax ci bële ñu ragal ñu jàpp ne dañ cee xaw a gaatañ mu tax ñu war a séddoo li nga xam ne mooy pas-pas yi pas-pas yi moo di ne lii nga xam ne soxna Ayda wax na ko yëpp incha allah daañu ko waxtaane daanaka mi ngi mel ne at maa ngi jeex yàlla rek moo xam waaye ñi ngi jàpp ne euh, yii nga xam ne moom mooy ittee askan wi daal ci benn ñaar ñett mm-hmm. indi nañu ko ci programme mm-hmm. ñu bëgg rek waxtaan ak mbokk yi pour koo xam ne dégg ndax léegoo léeg nga dajeek benn ab saareen wala soween mu ne xanaa da nga fàtte li ma la waxoon mm. mm-hmm. maanaam ci programme boo xam ne daf la ko dee yoon ngeen war cee waxtaan mm. waaw loolu yëpp muy tekki it yi nga xam ne mbokk yi am nañ ko ci mm. mi la mm-hmm. ñu bëgg xamal ñëpp nag ne wallaay euh, dafa fekk ne benn programme rek ngay mën a defandoo waaye itte yi ñu ngi ci yii ñuy wax yëpp ñu indi ko loolu moo tax ñu indee ko nii maanaam lim yi nga xam ne mooy topic si issues yi nga xam ne war nañ ko waxtaane ci programme yi di ñëw mu mel ni nag bi nga xam ne soxna Aida njëkk nga ko laal boobu dafa di sunu mbir ñun ñëpp ndax dañoo wax ñun ni neen la bu ñu waxee ñu ni neen la mbokk gaa nga fa te nag sax man xaw ma kan nga nekk ci kaw suuf te bokkook moom nee ñu bu fekkee nit ki mu ngi lay jaay yaxu rëy xaar ko ca aadama ndaxam dafa am loo leen bokk ndekete moo tax nga war ko xaar foofu mm-hmm. waaye yàlla ci yërmandeem ci kattanam itam daf ñu defal lu gën a jege ñun maanaam defal ñu ay ndey ak baay defal ñu ay mag ak rak defal ñu ay nijaay ak i jarbaat ak yu ni mel bàjjen yi ba nag foo xam ne sax dafa mel ni dara neewu fa moo ni fa lu mel ni ay kal fekk loolu daanaka mooy dundal lépp euh, yooyu nag am na jamono mu nekkoon loo xam ne lu lu kawe ci biir xel yi ak ci biir xol yi nit ñi di ko dund dana wax nañ mbokk alalu yàlla la ku ko jokk ku nekk mu jokk say mbir waaye ku ko dagg ku nekk mu dagg say mbir euh, te it yàlla bu la waxee loolu nekkul ne sax yow booy toppatoo mbokk dafa am lu ko ci nekkal moom waaye dafa xam ne yow sa dara sottiwul ci biir i mbokk rek nga mën a sottee te it ba mu lay tànnal ndey ak baay ba muy tànnal ñooñu ay waajur ba muy tànnal ñooñu ay magaki ak rek yooyu yëpp pour lu lay yombalal la sa dal ndax yaa ngi jóge ci pays boo xam ne kenn xamul macha allah waaye nga ñëw nag fekk fi ñoo xam ne mbooloo la moo xam ne ku ci nekk rek am na loo bokk ak moom bokk googu nag dañu wax ne mbokk daal